ngeen jëf Sahel Network TV la Anti Aïcha Anti Aïcha yow la moom saa yu ñëwee rek yow soo ñëwee rek waaw yow soo ñëwee gën a affaire la leen. mbaa doo ko waale gis nga man damay asalaamaaleykum yéen ñi di seetaan Sahel Network TV bu ko waale gis nga man moom damaa jaaxle parce que Gambie bi lu nekk nga fay dégg lu nekkee xew si social media soo tey dama andi leen li nga xamante ne oh mu ngoog. maa ngi ànd ñu ngi déglu maa xaaral da ngeen bëgg a góor. <laughs> maa bëgg bëgg a góor. waaw xaaral ma déglu nii di nga xool ne jigéen ji la wala ci góor gi. bëgg a góor a ko ko yóbbee rek ayca. ok. A German who, who has been visiting the Gambia for more than 20 years alleged that she was duped by a Gambian man, mm. Paboy Mende, mm. who was her husband. Mm. She later realized that all the documents used to authenticate their marriage are all false. Mm-hmm. maanaam buñ jaarale si justice ba fake la mm-hmm. and that the man was already married to two women here ah my story bi No lu no lu no lu baax okay the story is still developing as Pamodu men Pamoy Mende mm-hmm. has come out to deny her claims. Eh, so, you so, so, no, no, no, no. Yeah, Oyibo woman. Eh? Oyibo woman. What did they happen? Eh? Oyibo woman. No, woman let's, to man. Just say the fact. The man is the thief. Such a, such a woman. No, no, but the point is, no, you cannot, you, you cannot just no. get up. No, no, you cannot just get up and blame the guy. Let's let's hear let's hear the side of the guy. Uh, the guy has nothing to say. Of uh, course, uh, because said law, uh, other other side, good ngi am ñaari jabar fii nii. and through the story it seems like waxut oh, jabar uh, jigéen ñi ne am na fi jabar kooku ñëw na Gambia and been with you together in this Gambia di nga doon ko indil ay di ko di ko di ko xam nga ne di ko di ko bunu xatal su la hmm. koolee doo jël loolu dafa ñaaw dafa ñaaw góor yi nekk ak Gambia nañ bàyyi di takkal jigéen ñi nekk États-Unis man dama bëgg iya. man man dama bëgg si jigéen ñi bitim réew yi. waaw ma bëggee maa ngi nii. man loolu du ma ko laaj. bu ngeen toog leen. du ñu mën a ñëw njëkk bi yéen. jërëjëf waaw mën nañu yéen. yéen njëkk NIT ngeen. waaw ok mais yow ko wàll gis na ni soo ko fekkee ah nekkul loo xamante ne dafa parce que fenn sax moo warut a nekk sa diggante koo xamante ne nga ne da nga ko bëgg a. lu tax nga ne yow ya amuloo jabar ba nga ne da nga dem justice. takk jabar takk sëy bi nga xamante non man man fu mu nekk parce man man man lenn laa la bëgg a xamal dafa am benn baax boo xam ne moom nga jëfandikoo te nekkul ci mbiru bi. nga ne mbëggeel mbëggeel nekku fa. kon bala fa nekk. Euh, maanaam euh, euh, njuuj njaaj fa nekk. Mm-hmm. ak ah. because tey yow su fekkee ne mbëggeel la lii du so lii du mun accepté. kon mbëggeel la waaw moo tax nag ma ne la moo tax moo tax man moo tax ma ca parce que naxaate moo ci nekka moom dafa waroon a wax ne yow dama lay takk ngir nax la ah, loolu kenn du ko wax loolu la a la ah, ah, waaw loolu xam nga kenn du ko wax waaye su fekkee ne daal su fekkee ne Paboy yow yaa ngi yow yaa def jëf jii Paboy bu fekkee yaa def jëf jii jëf nga jëf yoo xam ne rafetul parce que tey jii man dama dee wax ne euh, Gambie yéen ak yéen Gambien si bëri dañ defoon ne tey jii suñ naxee tubaab lekk alalam soo leen laajee lu tax ñu ne la parce que dañ naxoon suñ maam yi yow kenn naxu la. yow yow tey jii xëy na yow euh, xam-xam boobale ñoom amuñ ko woon yow am nga xam-xam boo xam ne tey jii kenn mënu laa la parce que ñoom jàng nga seen culture ba xam seen culture ak yi ni ñoo doxale kon yow mënatuñ laa nax kon yow tey jii loo defete rek yow yaa ba hmm. ah, social media si nii nii. mu ngi jural loo xamante ne fu moo éega kenn xamul. tamit nañ bàyyi xel diga diga gis nga doomi aadama luñ ko toroxal lépp li nga jël si moom loo xam ne éleewu la ko ah soo soo dundee lu yàgg duñ ko gis. non non lu lu lu moom. Mm-hmm. nga dundal lu yàgg woo dund lu yàgg woo boo demee alaxira dañ ko fekk. waaw soppi na ba léegi da nga fo léegi man suma comme suma maam yi luñ faral di wax rek ñu ne léegi yàlla bàyyi ko ba nga dee mm-hmm. dañ la ko wane si àdduna. waaw yow nga takk sa ñaari jabar fii at least nga ne ko ne dama am jabar loolu moo gën a nice ah waaye nga seen nit dal daal su na la bëgg si si dëgg. waaw moo yene da ngaa gis fen ko ngoro ah dëgg mo ko toog loo. fen du ngoro. Mm. fen du ngoro de. lii laa wax lii lii la am lii la dem di te fekk loolu nekk fa. non non non non gis nga fen. Mm. fen lepp lu takati fen koy waaw di. te lii am. Mm-hmm. li sample la ci. fen a ko fen a ko tas ko kenn la. te loolu laa leen andi lool. bu la kenn jëmale bés bi bala ngay tàggatoo laay wax nii. ooy ah. boobu man. wax naa da ngeen ko doon góor. astafurlah waay. astafurlah xam nga problème bi ñoom dañ leen bëgg a wane. constitué au ñoom dañ leen bëgg a wane waaye dañoo dem Afrique parce que black man yi surtout xale yu ndaw yi ñoom ñoo gën a strong. come on waaw flesh blood. nañ leen waxante dëgg la. ooy boobu man. Yeah, got my job. bye bye. Don't forget the subscribe button and then the notification. Click it. Oh, you go, man. one Subscribe.